tey jii lu bëri ci actualité hmm. ñoom ñoo koy dégtal nit ñi gàttal nit ñi nit ñi di ko dégg chaque matin ak tous les jours. Mhm. donc liggéey boobu ñu leen di jaajëfal. Ah, merci merci à vous de de même nga bokk APR bokk ci ñi nga xam ne ñooy jàppale kii di euh, activiste bii di euh, Bah Diakhaté ñu tegoon ko loxo ni kii euh, lundi gis nañ leen ngeen taxawaay bi ngeen ci am depuis bi ñu ko bi ko jàppee ba tey di exiger sa libération bi ci mujj mooy communiqué bi nga xam ne dañ dañ ko def en commun jaarale ko ci li nga xam ne mooy APR génne ko démb ngeen di woote résistance. ne Bah Diakhaté na génn parce que détenu politique euh, ngeen ko ngeen ngeen ko jàppee ana la nga ñu mën a leeral loolu ci ci ci mbir moomu. waaw euh, damay dikkaat rek euh, ci li nga xam ni moo xewoon keroog d'abord. Mhm. dafa am importance dañuy leeral loolu. parce que xam nga nguur gi fi nekk ñoom yàlla daf leen dégtal mën manipuler mën a defar ay mbir ba mu nduru dëgg te du dëgg. loolu dafa dafa cee ay loolu moom yàlla daf leen ko may li xew keroog mooy dañu jàpp benn sénégalais ay xaritam ay ñooñam ak famem euh, dem du ko soutenir nit ñi dajee fa duñu mayeer spontané boo xam ne kenn yëgul sa yëgul yëgluwul sa morom dañ fa daje duñu mayeer spontané comme ni ko senegale yëpp defee bu ñu jàppee sa mbokk police euh, amaana sa tànk yi njëkk même bu ci mënul dara sax danga dem ba foofu taxaw foofu loolu lañ njëkk def bi ñu ko defee euh, nit ñi xëy na xawoon nañu bari ndax ñi ñëwul dañoo xaw a bari bon naturellement ci dëkk bi ñu nekk xanaa terewuñ nit nag boo amee sa mbokk bu ñu jàpp nga dem police wala nga dem fenn <coughs> loolu terewuñ ko ci dëkk bi ndax loolu du du du du marche du manifestation du rassemblement nit ñi ñoo fa dajewoon d'une manière spontanée ñëw foofu déjà ba ñu fa ñëwee ñu xoqatal ñu déjà di ñu gazé. à partir de dikk bi ñu dépassé tuuti la ñu commencé gaz yi disperser amul benn autorité bu ñëw di wax ak ñun sax ci njekk ak teraanga pour wax ñu lii ngeen def nii kat yoon da koo tere jëm leen jóge fii wala jëm leen poussi parce que zone bi ngeen nekk dafa sensible foog ngeen jóge fii defuñu loolu mais dañuy doon gazé dañuy génnee ci li nga xam ne mooy ville bi ñu génn bi ñuy commencé gazé ñu xam ne lii fu mu jëm baaxul ñun ñëpp ñu dajaloo pour génn bi ñuy génn encore xam nga bu ay mbooloo bu ñu jàppee ku mel ne Bah Diakhaté naturellement journaliste dañu fay ñëw <laughs> naturellement journaliste dañu fa ñëw dafa journaliste ñëwee nag am ñu tàllal ay micro bu ñu tàllalee micro imagine toi journaliste bu taxaw def liggéeyam tàllal micro nit nga ngay gazé maanaam di visé di leen dóor ay ay ay ay ay yaakaar naa ne raf du lu ñaaw la ci Sénégal d'abord. mais c'est pas une première quand xam nga xam nga loolu laay bañ a dégg c'est première dafa am lu fi nekkoon ñu ne lii baaxul mm-hmm. nit ñi sénégalais ñoo ne lii baaxul bugguñu lii. jël loolu teg ko nële. kon nangu nga ne baaxul. fa sénégalais ñoo ko wax man du man maay fal du man may man maay wax ni baax na wala baaxul man suma ma sañoon APR dafiy des fii ba deux mille. ba pare di doxal ni mu doon doxalee di réprimer manifestation di ko tas comme noonu. non dama ni dama ni je répète encore sénégale yi ñoo ni li fi nekkoon baaxul niñ doon doxalee. baaxul mais yow d'accordoon nga ci. de mosuma ci d'accord. Ah, kon daan nga dénoncer ni APR doon def bu ñuy tas rassemblement ak yooyu. man am na yu ma ci dénoncé am na yoo xam ne dénoncé wu ma parce que dama jàpp ni peut-être lu légitime la lu légal la. Mm-hmm. parce que yu ci gën a bëri ay autorisation de marche la ñuy demandé ñu tere leen ko ñun dañuy marche par la force. pas déclaration de marche bon déclaration de marche. est-ce que déclaration de marche war nañ ko tere. déclaration de marche dans un pays ah, ah. xam nga on xam nga non. indi luy tax boo ko bañee yow préfet wala gouverneur yaay indi lu convaincre ki nga koy tere. non à l'inverse non grave demeewul noonu mon frère demee demeewul noonu déclaration de marche boo ko defee dañuy xool mhm. ndax am nañu ay moyens pour continuer sa marche boobu ah, pour mën ko maîtriser marche dañ koy maîtriser waaw loo mënul maîtriser nag amaana mën nga ko tere xam nga nit ñi dañuy faral di wax ni état am na doole lépp état am na doole lépp mais lépp loo fi manifestation yi nga gis yu daaneel réew mhm. wala yu fi daaneel yu bëri ci ñàkk maîtriser ñàkk a maîtriser bi la. ba mu jur leneen. léegi yow boo koy ñaata ñaata alkaati ngay am pour tere ko. non xam nga loolu kenn mënu ko quantifier. est-ce que xam nga boo ko boo ko boo ko interdit wut fi ngay amee cent alkaati pour ñu encadrer ko boo ko interdit il te faut mille. xam nga fan ku la ne maanaam mënuma ko jox la lay woowu kàcc na. xam nga fan nga fan nga juumee juum bi mooy kiy def déclaration marche du wax ñaata nit lay indi. moom mi def déclaration marché bi mosula mhm. wax ni man dama indi mille personnes pour ñu mën a xool ñaata gendarmerie wala ñaata policier mooy doy pour encadrer marché boobu mhm. foofu mooy problème bi boo xamul nombre bi ñëw mënoo xam nooy nooy encadrer nombre de personnes yi yi ñëw ci teew ci manifestation mais mais préfet waxuñ ko loolu dañ na ko mhm. mars jóge nañ jële nañ ko ci les di tàggoo ci li ñuy yëgle la ñu indi ne ko yow mënoo tere mars lu dul mu am risque réel réel laa la wax de mooy loo xam ne dañ koy maanaam da nga koy bu doon lu ñuy làmb ma ne da nga koy daj trouble l'ordre public cumulatif ak manque d'effectif non mon frère dafa ndànk yow da ngay da ngay yaa ngi jaawle terme yi quoi gis nga gis nga gis nga droit droit dafa xaw a sew mhm. dafa am ay sew-sew yu ci nekk yoo xam ne yu bari yu ci nekk déjà ki nga xam ni moo mën a natt natt natt mm. natt mm. ne lii euh, dafa mën a mën na jur trouble à l'ordre public mm. autorité yi préfet bi lañ ko jox moom lañ ko bàyyi moom la ko sénégalais yi ñu ne ko risque réel non non kenn bàyyiwu ko non moom lañ ko bàyyi non non kenn bàyyi kenn bàyyiwu ko moom lañ ko bàyyeel parce que moom moo koy joxe mais lu tax ñu ne ko risque réel waaw waaw defal naa ko non non moom moo koy tere nit ki nga xam ni nit ki nga xam ni du ko joxee de nit ki nga xam ni ah. moom moom moom la ñuy dénk kaaraange dëkk moom la ñuy dénk kaaraange dëkk wala kaaraange zone hmm. moom moo mën a xam lan mooy risque ak lu dul risque lu tax ñu dugal ci réel la preuve la preuve lu tax ñu dugal ci la preuve la preuve lu gën a garaaw loolu am na am na ay arrêté yu fi interdire ñuy marche ci zone Dakar maanaam am na benn zone bu limite boo xam ne fii kenn mu fi marche kenn mu fi def manifestation. kenn fi def dara te ñoom bi ñu fi nekkee foofu yooyu lañ daan bëgg di marche. te ñoom bi ñu fi nekk waaw exactement. am na périmètre boo xam ne Dakar Dakar xam nga lu tax mu nekk risque loolu droit la xam nga loolu mooy arrêté Ousmane Ngom waaw déjà c'est antidémocratique même bu dee Wade moo ko fi indi supprimer gole non non non non waaw moom laa lay xam nga gis nga xam nga man boo ma gisee ma wuuteeg ñu bari damay nekk à l'aise man gis nga bu may xeex lii fépp laa koy xeex parce que lii yéen loolu tey arrêté boobu ba tey fi ñu toll nii. Ah, bu démb de nee nga waruñu woon tere taximaan yi. waaw seen marche bi. waaw non dama ne bu ñu déclaré respecté soixante douze heures yi. Mhm. fi ñu kii waruñ ko tere man loolu man dama dama d'accordul ci di tere manifestation parce que manifestation dafa am lu muy dindi nit ki wax li ko naqari parce que su doon taxaw loolu mooy indi pëccëxoo. te boo xoolee nguur buy tàmbali di daanu ci yooyu lay mën a nekk parce que nit ñi feeg yi leen jox bu ñu amee nombre bi dañ koy def ci jàmm dem teg parce que loolu mooy wane ne am nañ autant de sénégalais yu d'accord lu ñuy d'accord yoon ci mën a nat démocrate suñ ko amul dootuñ ko defaat kon loolu dafa yomb mm-hmm. mais gis nga yéen li ngeen def keroog loolu maanaam tey war nga mën a jàppale sa mbokk mais boo koy jàppale ngeen doon benn ñaar ñett du am problème mais bu ngeen commencé bari nag fa problème bi di nekk kon bu ngeen tàmbalee bari sañ na koo tas. trouble à l'ordre public. voilà voilà loolu day trouble wu quoi. Eh, ba ba pare saa la sax. mais i euh, carte d'identité ñu Medina gii la ñu fekk leen fa gazé leen door leen koy arrêté est-ce wax non loolu am nañ ci droit mais def porte à porte nit yi dem leen jël seen ay benn ñaar ak ñett. loolu loolu loolu c'est pas fekkee woon nga ko wala ñoom man fekke naa ko man fekke naa ko. man fekkee ma ko mais quand même dem naa ko reportage. munoo doon sa seede bopp loolu nga foog. <laughs> loolu nga foog xam nga porte à porte nit ñi bariwuñu maanaam loolu noonu tey mënoo mënoo wax ne tey yàqal naa mooy comme li ngeen di wax gis nga bu ngeen di doog a dem su ngeen doonoon ñaar ñett fukk. jarul nit ñi di leen réprimer parce que dañu leen di bàyyi ak yow mais bu ngeen commencé bari ba mu mën a jur leneen ak leneen bu boobaa ci la tere bi di am loolu moo tax nag yow boo ko bëggee def da ngay respecté 72 heures man nag tere bi ko mais mais mais mon frère mon ma xam nga tax tere bi comprendre ma ko mm-hmm. man je peux pas comprendre ñu jàpp sa mbokk ah. sa xarit ah. sa lu mu mënti doon ah. nga dem ca buntu police ba wala ca alentour ya di di di di ko di ko soutenir mu sentir ne y a des gens qui sont derrière moi qui sont là ñooñu ban dérangement la ñu mën a dérangé un million de personnes dérangé wu si ankay loolu moom kenn waxatu ko bu ngeen matee cent cent personnes wala trois cent dérangé je me dis que mooy nga ñëw di yuuxu wala taxaw non non boo taxawee parce que bu yaay daan def mais yuuxu yooyu gis nañ

mon frère journaliste ñoo leen nangu tëjal déedéet ñoom ñoo leen di jël ñu leen di bañ ma ne leen manifestation kay xanaa ku ci dem da ngaa war non je pas compris ñoom ñoo nanguwul ah, wax en fait Dakar laay ñoom ñoo nanguwul wax ah bëgguñ ku leen jël ah mais loolu da pare bëgguñ mais nga bàyyi mais nga ko doo filmer ah voilà non non grand d'accord ma dama ko wedd waa Dakar waa waa Feeling Dakar ma ne waa Feeling Dakar dama ko wedd image bi man maa fa dem di teg dégg ñu teg loolu. bul wax waa APR bul wax benn nit lu muy def nga ni waa APR. waaw non non bu nekkee ci yéen. déjà waa koy jaajëfal. waaw dañuy bàyyi ñu wax nag. non da ba nga wax mais dama lay wax ne la xool. mais boo ñu bàyyil ñu wax tamit du du. waaw jërëjëf waaw ñaar a man chroniqueuse. ko. noppil ma noppi mais du ngeen doon ñaar ba pare. dañ koy mën dañ koy déglu def différence. xam nga li ma la waxoon sànq cest à kon si woo sama raisonnement dama ni la ay nit yu jóge spontanément ñoo ñëw foofu xam nga parti APR déclaré wul ni ni nañ daje nañ daje foofu noonu def ñu ñu ñu rassemblé foofu APR deful loolu bul jaawale APR ak li nga xam ni mooy waa nit ñi nga xam ne ay ay jegeñaayoo jegeñaale ba ba jaxate lañu ay souteneuram ak ay xaritam ñoo fa daje woon loolu bu ko jaawale déjà damay revenir li nga wax sànq

autorité bi nga xam ne mooy joxe moom mooy joxe boo defee déclaration de marche moom moo mën a juger ndax trouble à l'ordre public loolu du trouble à l'ordre public xaaral ma pare rek ma pare sama raisonnement beneen chose rassemblement nit ñi daje nga wax nit ñi bu dajee bu baree combien de manifestation ñoo am biir Dakar tey ji assemblée day am déclaration de politique générale wala am dara da gis sax lu ëpp fi ay fuul ay nit dañ fay daje te pourtant du am dara kenn du leen kenn du leen disperser bëri na politicien lu muy def la assemblée générale nga gis ministre tax bu ñu invité nga gis fa ay kaari njege lu mat cent laa wax yu ñëw foofu di soutenir si nit ki est-ce que di nga gis ñu dispersé leen. parce que waa APR lañ woon. parce que waa APR lañ woon. si parce que waa APR lañ bi suñu armée bi dama ne waa APR bu ñu daan def loo xam daf leen ensemble ay. kaar non dama ni la dama ni la non déglu ma déglu ma man lay